asalaamaaleykum waa Alphie sama gars yi ñëwati naa tey nañu dem ci accompagnement yi waaw ñëw nañu ci salade yi waaw nañu defar accompagnement yi defar benn de dauphinois gis nga samay pomme de terre laay jël ak euh, li may xollee pomme de terre bi noonu di ko daggat ba mu sew mën nga jël sa paaka voilà boo daggee def benn couche bul fàtte def xorom daal di jël sa crème liquide def jël sa fromage boo mënti am rek parce que ku nekk ak fromage bi ngay gis Euh, daal di ciy def jël sa noix de muscade def ci ba mu saf def tuuti poobar euh, daal di koy dugal ci sa loxo nag bu ko defee fromage bi mën a dugg bu baax ak crème bi mën a répartir ak euh, pomme de terre bi bu ko defee ñu enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes ba pomme de terre bi ñor. deuxième accompagnement bi ay rösti la toujours à base de pomme de terre moom tamit dañuy jël râpé ko buñ ko râpé def ci benn soble sunu pak waajal tabaski mi ngi tege. 7500 nga am euh, six variété épices ci biir voilà ñu dagg suñu persil daal di jël suñu pomme de terre bi nga xam ne moom la ñu ràppe woon weñ ko ba ndox bi yëpp génn ñu def ci benn soble def persil voilà assaisonné ko def ci épice su nokkos moom nga nga xamante ni dafa bokk ci pak waajal tabaski bi nokkos bi moom épice su passe partout la moo tax moom laa njëkk jeexal fépp lay dem nga daal di def sa xorom assaisonné am na ñu ciy def farine am na bu la neexee nga yokk ci fromage mais man defuma farine parce que pomme de terre bi dafa am amino ba pare donc dina dina jàpp nga jël sa poêle laal tuuti dëwlin jël sa emporte-pièce wala nga jël ko noonu def ko ci poêle bi soo amul emporte-pièce ba léegi da ngay am même résultat tàcc tàccal voilà ba nga am sa ba nga jeexal pomme de terre bi nga am ñu daal di koy teg ci euh, taal bi bàyyi mu croustillant jël couleur bu rafet voilà troisième accompagnement bi nekk benn crudité boo xamante ne dafa neex ci lépp luy grillade voilà neex ci miche wi neex ci ceebu yàpp voilà dañuy jël euh, poivron couleur jaune rouge vert jël persil jël soble ak laaj daal di koy boole euh, mariner ko def ci dëwlin en général huile d'olive moo koy moo koy marine lii nag mën nga ko def bien avant sax tabaski bi di ñëw bu ko defee nga bàyyi ko mu macérer ci sa frigo def ci sa tuuti vinaigre bu la neexee nga def ci tuuti moutarde bu la neexee nga bàyyi ko nature huile d'olive mais nag da nga koy sàppali dañuy def sunu épice nokkos def épice sauce euh, def épice légume def sunu xorom sàppali ko ba mu saf. mën nga ko lekk ak méchoui mën nga ko lekk say brochette mën nga ko lekk ak ay grillade voilà pour quatrième accompagnement bi mooy euh, soosu soble yi nga xamante ne dog yi dafay rëy lool tamuy croustillant nga ko mën ko accompagner ak sa ay brochette mën ko accompagner ak sa grillade dégg nga maam bu la neexee boo toggee sa méchoui tamit boole koog genre euh, pomme soble bi ñuy ñuy ñuy tiital voilà mais ñor mais du ñor. voilà léegi nag nga assaisonné gis nga def sa dëwlin def xorom def épice voilà sa soble bi ak poivron bi bàyyi ko mu macérer le temps que ñu jël suñu pool teg ci dëwlin daal di tàmbalee defar sunu soosu soble épice su nokkos épice su soos mooy dooreel euh, soos voilà ba tax na. ñoom ñaar ñëpp bokk nañ ci pack waajal tabaski bi ngeen am ko ci euh, numéro de téléphone yi di jàll. bu ngeen demee Auchan da ngeen fay fekk ren herbe épice hypermarché exclusif am na ren herbe épice bu ngeen toogee woote ci numéro téléphone bi ñu livre leen te site internet bi ba léegi tamit bu ngeen ci duggee yéen ñi nekk ci diaspora bi mën a am ci ren herbe épice donc alfi fu ñuy mën a am ren herbe épice réponse yaa ngi noonu ñi ngi waajal direct yi ci weekend bi direct tiktok yi euh, alfi cuisine ak voilà ñaar lay doon ci weekend bi vendredi samedi wala vendredi samedi dimanche bu sama yaram tàngee tombé na ak sunu soosu soble pare sunu gratin ñor ñu daal di koy yëngal laal ci tuuti persil mu nekk accompagne yoo accompagnement yoo xamante ni ku nekk mën nga ko defar ndax mooy mottali ndawal gi bu du ñu ne ndawal sans légume ba tax na légumes yi dafay ñëw accompagnement yi dafay ñëw ndax dige bor la voilà ayca jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte abonné defee saa su nekk ci plateforme yëpp bu ko defee rek ñu joxante rendez-vous semaine prochaine sinon direct yi ci week-end bi euh, TikTok Alphie Cuisine ak Reine Herbes ren Reine Herbes Épices mi ngi ci plateforme yëpp Instagram Facebook ak TikTok jaajëfal naa leen sama gaay yi très bonne dégustation nuyu waa team croustillant ak ñi nga xamante ne ñooy bàyyi seen commentaire ci Alphie Cuisine kenn du yéen sama gars